kannaaw sant sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Chouaïbou di ñaan yàlla mu dolli ko tawfiq dolli ko kartan ba di mu yéene ci liggéey bi lépp mu mën koo àggale ak sago te ñu ànd kook moom ñu ngi mboole mbokk yi nekk ci biir bi ñëpp itam di leen ziyaara di am mbégte ci seen taxawaay di ziara mboolem waroon xam-xam yi fi nekk yëpp di leen jagleel suñu ziara ak di leen màggal bu baax a baax baax di fas yéene ñëw ak yéen ci seen jataay bii di fasal ahlu zikri incha allahu ñu fas ci yéene waxtaane benn tomb bu am solo muy li ñuy tuddee muñ te arab yi di ko wax as sabr bokk ci li tax ñu tànn ko muy dafa am munaasaba ak weer wii nag bi shahru ramadan weeru koor wii boo demee ci yeneen warab ci sunnas yonent bi wala xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni koy faral di tuddee shahru ramadan noonu yi lañ koy wooye itam shahru sabr maanaam weeru muñ di weer woo xam ne muñ daf caa am wàll ku yaatoo yaatoo yaatu eh, ak donte muñ nag am na wàll ci jaamu yàlla yépp waaye nag ku caa rawati weeru te bi nag muy weeru muñ tax nag ñu tànn tomb boobu ngir fas yéene fàttalante ndax jamono du dañ di aajowoo ak muñ ak muñlante waaye rawatina jamono jii na toll fi mu toll muñ nag bokk yi di lu bari ngëneel lool loo xam ne sunu borom tagg na aw ñoñam tagg woo xam ne wenn tagg gënu ko rëy ci alquran dikk na leen itam ay ngañaay yu baree baree bari ba wax na sax daf leen di fay ñaari yoon mbooleem jëf yi nit di jëf jëf bi ci nekk ak payam dañ koo sàkkal eh, ay nattuwaay maanaam peese jëfi jaam yi peese goo gii nag bu ñu ko day wax eh, jëf bi ñuy wax muñ di ca bokkul muñ moom kenn du ko peesal moom dañuy jal rek dañuy fab di jóor mu nekk ay désert di jóor di jal di jóor di jal ba nit ki mu ñoon sax bu gisee payub muñ bi ñu koy fay day wax ne yow sama boroom lii man ana fan laa ko jóg te fekk ne du muy payut muñ goo xam ne muñoon na ko rek te muñ jaadoo kon muñ bokk yi lu baree bari gëneel la lu rëy rëy itam daraja la waaye bokk na ci ngëneeli muñ itam dafa tedd ngam bu ñu xoolee yitte ji ko sunu borom jox ci téere bii di alquraanu karim mu tudd ko lu ëpp juróom-ñeent fukki yoon ci ay barab yu wuute quatre-vingt-dix ci ay barab yu wuute wuute yu teqaliko te gisuñu weneen melo wa suñu boroom tudd lu toll noonu ci téere bi ci lim yu toll noonu kon loolu day wone ni muñ suñu boroom jox na ko yitte ju réeréeréeréy waaye jox na ko itam wàccuwaay ak tedd nga ju mag nga mag ci boo delloo nag ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day fekk mu fees ko dell boo deelee itam ci waxi saxaaba yi radiyallaahu anhum ajmaïn mu day fekk mu fees ko dell ba ci boo deelee ci waxi as-salaf as-saalixuun da fekk mu fees ko dell waaye noonu day fekk mu fees dell ci téere yi woroomi xam-xam yi ñu di ko digle ak di ko soññ ak di ko ñaaxe loolu daal li muy tekki mooy muñ moom lu mënta ñàkk rek lay dem kon muñ nag nekk ay darajaat yu wuute waaye yu gën a kawente itam te kat darajaat yooyu siir wuute delluwul ci lu dul tolluwaay yi la muñ waaye itam ak nañu koy muñe bu nu seetee yonent yi alayhi salaatu wasalaam suñ boroom daf ko wax ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ñu ne ay jooju mooy li ko dugal ci lim bu tedd bu barkeel boobu ñuy tuddee ulul azmi mooy yonent yi nga xam ne suñ borom bi dina tànn ba tagg leen ci ñoom kat waroon ñu dogu lañu maanaam ñu am ak dogu lañu loolu nag yonent yi bari nañu lool waaye ñu néew la ci suñu borom tànn tagg leen ci tagg wu tedd woowu muy juróom yonent képp te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la bokk ak Muusa Isa ak Nuux waaye xoolal ku mel ni Seydina Adam suñu borom dafa dàq loolu ci moom walam najid lahu asman lu ko waral mooy am na lu suñu borom kóllërante woon ak moom waaye day mel ni dogu ni ko dogu nag dafa am lu koy jëfal dafa am lu koy gunge loo xam ne bu ñëwul ak doogu du taxaw buy buy kon gis nga yonent yi ni ñu ëppante ay daraja ak ni ñu gën a teddante waaye ka gën a tedd ci ñoom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunu boroom joxuñ na ko ay yonent yu nekkoon ca kanamam nekkoon ko na nga muñ comme nañu muñu kon gis nga yàlla jaam ñi mu tànn kon gis nga sunu boroom jaan ñi mu tànn te gënal leen ci kaw suuf ca mbooloo ya jiital leen ñu nekk ay njiit yoo xam ne def du roye ci ñoom ndekete kat seen daraje seen daraje yi ñu doon lamboo la ci gën a bari ak la ci gën a sori ñu ngi ko doon jële ci muñ goo xam ne rek daanañ ko muñ sunu boroom nag moo jagoo jëf yépp amatan waaye sepp na ci muñ xaasatan di wax ne fasbir wa ma sabruka illa billah gis nga jooju wax ni mu réye ak wali rabbika fasbir boo setantalee yaari waat yooyu wax yu magg a màgg la yuy wane nit ki daal mënta ñakk muñ ngir jëm yàlla te it banu israil kat suñu borom defal ni leen ay njiit ñuy woote jëme ci aw yiw ak di tere safaan nit ñi topp leen waaye amewuñ seen jir ga ci dara lu dul saxal rek ak muñ wa jaalnaahum a'immatan na bi amrina la ca suñ borom teg mooy la ma sabaru ba ñu muñee rek la leen suñ borom defal tawfiq jooju loolu it di wane ne ak njiit gu sax gu dëggu amul kenn ku ko mën a am lu dul ni danga koy jaare rek ci muñ muñ gu sax dakk ci la ko njiit di mën a nekk waaye ba tey it wa tamat kalimatu rabbika alxusna ala bani israil bima sabaru la leen suñu boroom de dey laata ñu koy mën a am te mooy yàlla gannaaw ba ñu nekkee ay nit ñu suufe lool noonu yàlla yi bari kartan ci seen kaw di leen loro ko nappaaji yàlla dig leen ne dana leen yëkkati teg leen ci seen kanam loola kat ba leen ko yàlla digee laata ñu ci mën jot dafa fekk ne dañoo muñ ba noppi moo tax bi ma sabaru jooju lu ama ama am solo la ngoog ayimmatan yahduna bi amrina ma sabaru ak itam bima sabaru loolu it lu am solo la kon day wane ni nit ki faw rek bala muy am li mu bëgg ci yàlla wala sax li mu bëgg ci àdduna bu fekkee ku àddina la faw ak muñ da koy jiitu gu wér a wér a wér mu a am dara ca loolee mu doon sakku kon loolu day wane tolluwaay boo xam ne muñ am na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna fi sabri ala takrahu xayran kasira nee na muñ loo xam ne bëggoo ko dey nekk na ci biir muñ googee aw yiw wu baree bari te bi ne bu doon xayran rek mu doy waaye li tax mu melal ko ci kasiiran nag di firi ne yiw bari la mooy yiw woo xam ne ëppwul kenn mënta xam na yiw woowee loolu it mooy la dëppoog la Seydina Isa waxoon nitam ne ñu leen innakum la tudrikuuna ma tuhibuun illa bi sabrikum ala ma takrahuun li ngeen bëgg fa ngeen bëgg àgg du ngeen fa mën a àgg mukk du ngeen mën a doon ñi ngeen bëgg a doon mukk du ngeen mën a teg loxo ca la ngeen di yootu mukk lu dul ni da ngeen a nangoo muñ sax ci muñ dakk sax dakk dakk dakk ci muñ lépp loo xam ne du leen naqari kon loolu day wane ne nangoo muñ ngir jëm yàlla mooy mën a tax nit ki àgg fa mu bëgg àgg Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu wax na ne a asabru nisful imaan nee na e, muñ dey ngëm yàlla bu nu seetee ni mu toll genn wàll gi lépp muñ la kon day mel ni muñ moom bu xasee dem ba wan gannaaw nit ki rek bu ko nit ki ñàkkee genn wàll ngëmam lépp ñàkk na ko te loolu mënees na ko indi ci la yu leer xam naa borom xam yu bari détaillé nañ ci waxam jooju euh, te it lu lu lu wér a wér a wér a wér Seydina Ali karamallahu wajhahu daf muñ muy ponk ci ponk ngëm yàlla kii dane genn wàllu ngëm la kii ne ponk la ci ponk gëm yàlla ponk nag ku ne xam na li mu doon bokkut ak charte charte moom day génn mbir mi waaye ponk moom day nekk ca biir ñi ko usul yoon yi jàngale bu ñu seetee mbaar jën yi koy taawu manes na ko misaal tuddi ko ponk bu dajj ko mbaa mu màbb rek lañuy ñuy séentu mooy mbir ma dootul am taxawaay bu rafet te sax mën na caa jaare màbb mooy ponk kon nag loolu am solo la day mel ni ngëm bu fekkontoon ne mbaar la bokk na ci jën yi ko téye jën wi ñuy tudde ak sabru muñ waxtu wu ca manqué rek taxawaayu moomee mbaar dootu rafet wala dootu mat wala sax mën naa far nërmeelu wala ayaasu billahi taala daf daan wax moom sidna Ali ni buniyal imaanu ala arbai daahim ala al yaqini wa sabr wal jihaadi wal adl nee na lislaam ñeenti astaghfirullah ngëm ñeenti ponk ponk yëpp rek rek ñoo ko na ci li ñuy tuddi mooy wóolu waaye lam ca teg mooy muñ lam ca teg nag mooy jihaad lam ca teg mooy maalu al adr mooy lu am am solo ba tey daana wax ni a الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد nee na ngëm daal boo bëggee xam tolluwaayam ci ngëm yàlla moom muñ tolluwaayam ci ngëm xoolal tolluwaayu bopp ci nit rek doomu aadama bopp lam doon ci moom solo ci bopp amee ci moom nee na solo soosu la muñ amee ci ngëm yàlla laa jasada liman la ra'sa wala imaana liman la sabara lahu doomu aadama cër bu nekk mën na koo ñàkk ba noppi des di dund ba mu des bopp bu ñu delloo ci fuqaha yi dañuy wax ne bu nit réeree ñu di ko wër ba for baaram ba tekkiwul ne dee na kooku duñ ko mën a joxagun atteb ku faatu ba tey ay soxnaam dañuy des rek day soxna alalam kenn du ko miraas waaye yooyu yëpp bu ñu doxee ba yem ci ab loxoom walla ab tànkam ba tey dañuy jàpp ne rek jamtalu na mu des di dund waaye bu ñu xasee yem ca bopp ba nag loolu moom soxna yi mën nañoo daal di firigu te daal di jublu penku na ko ngaa ñi di faral di waxe alalam it na koo daal di séddale ay donoom ndax nekkatul ci at nit ndax bopp ba mooy lam ñàkk kon gis nga solo si na bopp am na ko waaye Seydina Aliou nee na noonu nag la muñ demee ak ngëm waxtu woo xamee ne nit ki yëg na ne doonatul kuy muñ na yëg ne ngëmam dara desatu fa dara dara desatu fa kon daa mel ni ka jëkkoon a wax ne mooy genn wàllu Abdullah ibn ma jëkkoon wax ne mooy genn wàllu ngëm kii nag daa far wane ne bu dee genn wàll gaat wàll ga ci ëpp solo la doon nga xam ne boo ko ñàkkee far mën a ñàkk lépp kon muñu googu di ponk bu mag bu rëy bu am solo boo xam ne lu jamono gën di wéy nag mu mel ni luy gën di néew yelloo fàttalante lool ndax sunu borom wa tawaaso bil xaq wa tawaaso bi sabri la wax faw ñuy dénkante dëgg waaye faw itam ñuy dénkante muñ isbiru wa saabiru muñ leen waaye muñ lënte leen itam muñ mooy muñ gi am ci nit ki waaye muñ lënte mooy gi ko génn mu koy jëflante ci digganteem ak moromi jaam ci ko suuf di loo xam ne lenn mënu ci ñàkk doon nag lu bari ab yool lool lu bari itam tuyaaba wax naa léegi ne sunu borom nee na euh, ñi nga xam ne dañuy muñ buñ leen di jox seenu pey kenn du ko peese ndax ëpp na peese maanaam dañ koy jal rek waaw dañ koy jal rek waaye kenn du ko xisaab te it sax dañ leen koy jox ci pay goo xam ne muy gën a rafet gën a mat nañu jëfe woon ñoom wala yajziyana allazina sabaru ajrahum bi ahsana ma kaanu ci nu gën a rafet nañ ko defe woon noonu di leen ko yàllay fayee parce que suñu borom waaye gis nga jenn laaye boole na ci ñeenti yëf yoo xam ne lépp muñ kër yi la ko jagleel la ci jiitu mooy assalaatu li ñuy tuddee julli goo xam ne day bàyyi ko ci yàlla ak ay malaayikaam waaye itam arrahmatu mooy yërmande ji nga xam ne kenn mënu ko ñàkk saa yu nit faatoo la jëkk a wax mooy yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jégal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jégal ndax nit ki fi bàyyi ko yaar yooyu mooy lim gën a tee aajowoo te du dañ nag di aajowoo yaar yooyu mooy euh, yërmande yàlla waaye itam njëggal ak suñu borom beneen bi mooy njubug suñu boroom ginnaaw bégal ak sunu borom ñeent yi yëpp daje na ci way muñ ñi sunu borom wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bégalal way muñ ñi xamal leen ne maa leen ameel yooyu yëpp te it dana leen ko jox waaye nag daa mel ne du góox bu bu neex góox bu naqari la lool boo jëfee jàllale te jàmbatu góox bu naqari la lool boo xam ne boo ko góoxee say rongoñ mën naa génn waaye nga jàllale ko sa puut mën a xotti ko nga fexe ba wann ko mu yëngal say wàll di yëngal di xotti sa biir waaye nga muñ rek gën a dal gën a muñ rek ba mu ne rëmm dal ah suñ borom nag tagg la tagg wu réeréer yi tàbbal la ci biir taggam wu tedd woowu taggkat ab néeg la boo xam ne liggéey na ko mu àgg waaye nag wutalu ko caabi kat képp koo xam ne dox na ba ëgsi ci rek dana mën a daal di tàbbi ci biir néeg boobee képp ku muñe ni yonante yi muñe woon ak ni saxaaba yi mu ñëwoon ak ñi leen topp nañ muñe woon tagg woowee am nga place ci biir néeg bu tedd boobee nga xam ne muy néeg bu mu tagg way muñ yi moom suñu borom subhanahu wa ba tey muñ mooy tax a mën a nekk ab jullit wala aji gëm yàlla ngëm gu wér-wér ndax loolu ñu tegtale woon ci wax waxi Abdullah ibn Mas'ud ak waxi Seydina Ali karamallaahu wajhahu boo xoolee day dëpp ak xadis bii nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci Abdullah ibn Abbas lañ ko jëlee radiyallaahu anhu mu wax ne yonent bi salaam bi mu duggee ci lansaar yi daf leen a laaj leen amuminuuna antum benn bis rek tàbbi na ci lansaar yi laaj leen baat boobu muy baat bu rëy boo xam ne bu la ko yonent laajee faw nga am ak gàkk amuminuuna antum ndax way gën ngeen yéen ñu ne teg fa sakatu ñoom ñëpp ñu noppi waaye sidna omar radiallahu anhu ne ko naam ya rasulallah waawow yow ma yàlla yoon mu ne ko wama alaamatu imaanikum lan mooy firnde ci seenu ngëm lan mooy màndargaal seenu ngëm waaye xoolal li ko Sidna Omar tontu daf ko ne nashkuru fi raxaa'i wa nasbiru ala albalaa'i wa narda bil qadaa'i nun dey bu yomb yomb ñëwee ñu sant maanaam bu xéewal ñëwee suñ boroom defal nu yombal dañuy sant waaye bu suñu borom wàccee ci suñu kaw balaa itam fitnaal nu musibal ñu boobaa it ñu ñu muñ rek waaye bu àttee bu dogalee itam ñu gërëm la mu dogal waaye sunu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko muminuun wa rabbul kaabati maa ngi giñ ci boroom kaaba gi di sunu borom ne kon yéen way gëm yàlla ngeen kon gis nga saxaaba yi sunu boroom seeral na leen wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam seeral na leen seenu ngëm yàlla seenu gëm seen boroom ci lan ci yett yii nga xam ne melo la woo xam ne mënee su ko ñàkk melo woo ngir matuk ngëm yàlla mën a am ci nit loolu mooy nit ki di sant xéewali suñ boroom yi waaye itam di muñ balaa yi muy wàcce ci kawam waaye itam di gërëm dogali suñ boroom yépp kon gis nga muñ tolluwaay bi mu am foofu ak wàccuwaay bi mu am foofu mënta ñàkk ci mott li ngëmuk nit ki noonu la Maymuun ibnu Mihran waxoon ni al imaanu wa tasdiqu wal maarifatu wa sabru waahidun nee ñeent ngi di yoo xam ne ñu ngi leen di tàqale waaye daanaka rek lenn lañu mooy li ñuy tudde ngëm ak dëggal ak xam yàlla ak muñ nee na lenn rek lañu loolu mënees na cee dégg ne amul ci lenn gis nga sabru moom mujj tudd amul ci lenn lu mën a taxaw ci yett yooyu ko jiitu lu dul nii dafa fekk muñ am ba noppi faw rek muñ am ba li ko noon bokk na ci tedd ngaam itam abu darda radiallahu anhu daa wax ne zarwatul imaani alsabru lil xukmi wa rida bil qadar ngëm ay escalier la waaye njobbaxtal la maanaam fa muy yem ci kaw foofee muy muñ ci atteb sunu boroom waaye itam gërëm ab dogalam di yaar yu jafe jafe jafe jafe muñ atteb sunu borom ak gërëm ab dogalam kon loolu day wane tolluwaay boo xam ni muñ am na ko kon faw jullit bi nangoo muñ lépp muñ ci wàll yépp ndax lépp lu ñu teg bët rekk ci jëf walla wax ci lu koy mën a may tuyaaba ak muñ a ngalalu ci biir goo xam ne bu ko joxul xaqam ci dëgg-dëgg ngir mu mën cee àgg fa mu jëm lu jafe-jafe la yonente sallallahu alayhi wasallam dañ ko wax ne ko wasbir ala ma yaqulun gis nga dañu ko doon sabootee di ko yëjji di ko wax ay waat di ko teg yoo xam ne kenn mënu ko misal waaye sunu boroom ne ko muñal li ñuy wax ba ci sax li ñuy wax di ko jëme ci man mii sa boroom ci xeeti waati bokkaale ak yeneen mel yépp yow muñal lépp rek wasbir ala ma kon nag day mel ni nit ki di muñ yenn wax yi ak di tàngamloog di ko dëneerlu loolu itam bokk na ci liy mën a mot li ngëmam dëgg dëgg dëgg te koy tax àgg fu mu jëm ba tey itam mooy tax suñ boroom mën a considérer nit ki man koo lim boole ko ci ñi nga xam ne dëggal nañu ak ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla waaye muñ moom bu amul dëggal du fa mën a te nekk ragal yàlla itam du fa mën a te nekk wassaabirina fi lbasai wa darrai wa ina al baas lu ci def suñu boroom teg nag ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ñi nga xam ne bu taree ña muñ bu lor ñëwee itam ña muñ jamono ba nga xam ne mooy jamonoy tar ña nga ciy muñ ñooñu kat ñooñu nga xam ne ñoo dëggal ulaika alladina sadaqu ñoo ñoo dëggal de waaye itoo ulaika humul muttaqun ñooñu rek ñooñu ñi nga xam ne ñoo ragal suñu borom te dëggal ak ragal yàlla yooyu yaar jullit bu nekk moom lay sakku kon nag gannaaw bu ñu taggee muñ ci tagg yu bari yu tedd yooyu yépp ci firnde alxuraan ak xadiis ak waxi ñoo ñee ca toppoon yal na yàlla dool leen a yërëm dool seeni tawfiq kon ñu jiima firi tuuti ci jëmmi baat bi ci boppam man max naa lay lamboo ndax dafa nekk lu yaatu loo xam ne wet gu nekk ak lam fay tudd ak nañu ko fay jàppe ak nañu ko fay doxale waaye man nga ne muñ mooy xabsu nafs xabsu nafs yi saayi fi hawa fexe ba tëj sa bakkan ba du dox ci bànnee xam maanaam bakkan dafa mel ni jurguñ tinki mu boy lool buñ ko misaalan ci jur gi gën a sopp ci jur gi mooy béy juri kër ka ci gën a sopp mooy béy boo tinkee rek fa mu jawal daw jëm fa boo ko toppee dëgg dëgg yekku na fa ndingul jàmbur lum bënn boppam di ko ca dugal ah moo tax dafa laaj sàmm dafa laaj rët yeew ak tëj bu baax a baax a baax a baax waaye laajul boyal kon lii bakkan di laaj li bànneex di woote lépp nga tëj sa bakkan ba du ko wuy ji loolu lañuy tuddee maxanaa muñ muy maxanaa mu jëkk waaye bokk na ci itam manante ak sa bakkan ba taxaw temm ci lépp lu yàlla gërëm rek nga nekk ci waaw gërëmaa suñu borom yépp nga nekk ci jëf yi nga xam ne moom la yàlla tànn te digle ko nga nekk ca nekk loo ko ci loolu itam bokk na ci muñ waaye itam tëj sa bakkan ci saxaal ko ca ndax bakkan xeex ak moom ba tàbbal ko ci jëf lu baax loolu mooy jéego bu jëkk waaye li muy jafe-jafe nag fexe ba saxal ko ca mooy la gën a jafe fexe ba saxal ko ca mooy la gën a jafe waaye itam wa ala xusnil adabi fil muamala fexe ba teggin yu rafet rafet rafet nga koy jëflante waaw teggini jëflante yi rafet nga man caa not sa bakkan ba nga xam ne ca la jati sax loolu itam dafa bokk ci maanaa yi ak sabru amee muñ ba tey itam gàkk yi nga xam ne dafay laaj nag waral muñ mooy fekk mbooleem cër yi ak tëj bakkan ba du dox nag jëm ca mboolem gàkk yoo yi nga xam ne danañ ko lim incha allah ci kanam waaye tëj bakkan ci ak jaamu yàlla gu sax dàkk waaye saxal ko ci dàkk bu du ko mënatee génn saxal ko ci jëflante làmmiñ ak xol ak mboolem cër yi loolu itam dafa bokk ci màndargaay muñ yi gën a tedd màndargaay muñ yi nu gën a sàkku ci ab jaam waaye itam bokk na ci muñ li ñuy tudde kaful aza anil xalq muñ ba doo lor bindee fi yàlla yi tàmbulee ko ci nit ñi ak li la wër lépp te duñu ay nit waaye muñ ba doo doon kuy lor mbindee fi yàlla yi ñi ko sëñ Tuubaa waxe woon ca xasida ga Matlabul Fawzayni wal takfini aza جميع العالمين ولتكفهم أزايا يا رب أمين ak waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zeynaba loolu dem na dayoo nga xam ne mu ngi fegu di ñaan suñ boroom fegal ko lori bindeef yi waaye di ñaan suñ boroom fegal bindeef yi itam loram mu di ko wax ne bu ma lor ku jege bu ma lor ku sori bu ma lor jullit yéefar sax bu ma ko lor kon loolu day wane ni bokk na ci màndargay muñ muñ ci fekk lori bindeef yi fekk lori bindeef yi fexe ba fekk ba benn mbindeef doo ko lor maanaam kenn du loru te fekk na yow yaay saabus ak lorom wax nañ ne loolu mooy maqaamul aadiliina maqaamaam ñi nga xam ne way maandu lañu ñu ne loolu bokk na ci seeni maqaamat waaye itam ñaareel bi mooy ixtimaalul aza anil xalq xam nga nit mën naa góorgóorlu ba du lor waaye it nag mënta lijjantee lijjanti ba nit ñi duñ ko lor lor yooyu ko nit ñi di lor nag bu wax ne gannaaw man duma lor kenn ku ma lor naa ko digaleeg yow su boobaa muñ newu fa ginnaaw muñ na ba du lor bindeef yi mooy jéego bu jëkk na ca dolli nag mën am tolérance maanaam mën a yanu mën a toléré seeni lor ñoom itam mën a attan seeni lor ndax lor bi de fi kët dafay jege lool day tàmbalee ci njaboot doom ji nga jur soxna si nga yor euh, surga bi nga yor emploi bi la ci aju nga toppee ko noonu mu bari lool loolu lépp day wane ne faw nit ki itam nangoo am tolérance am yaatu dënn ba mën a xajoo dëgg-dëgg bang bang ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel kon loolu it doon lu am solo ndax fi ne loolu boo xoolee jafe-jafe yépp ñaare yi ci gën a bari ci loolu lay bàyyi ko mooy nit ku mënta muñ ak tooñ boo demee ci tribunaux tribunaux yi ñoo ko fees dell dossier yaa ngi tegale tegaloo ah juge yi am na ñuy liggéey mënatuñoo ñoo noppalu guddi bëccëg ñu ngi xuloo ci rajo yi ñii di ko joorante ci internet bi ñii di gaaruwaale ci mbooloo yi ñii di waxante dara mooy nangootuñu muñ ak tooñ rek waaw ñàkk nangoo muñ ak tooñ xam ne lu lu lu lor lum néew néew rek nga ne loolu danaa ko ko danaa ko ko fay eh, am na ci mag ñi ku masoo ku masa toog ci benn jataay ba yàgg mu ne ah jiw day day day day day day saay-saay rek waaye dana xam ne maako gën dib saay-saay waaw mag ma dal koy tontu ne ko waaw yaa ko koy gën a doon ndax danga koo waaj te moom waaju ko ak caay-caay boo ko waajee day tar waaw ak boo ko waajee day tar moom nag da koo waajut moo tax kon faw yaa koy gën di saay-saay kon loolu day wane ne maanaam waaj aw yiw jëme ko ci bindeef yi akum jéggal ak xajoo seeni tooñ te jëmm yàlla rekk tax loolu moo ko solo foofu waaj jumtuwaay yi fayu aku caay-caay ak i lor di ko jëme ci ñoom a cheikhul xadim radiallahu anhu waxoon na ne kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu itam du noppalu nee na képp koo xam ne góor góorlu nga ba doo tooñ kenn te ku la tooñ nga jéggal ko tàbbi nga ci sange su amul bunt mooy tata joo xam ne amul benn bunt maanaam amul kenn ku la mën a lor yow moom mucc nga loolu ñuy tudd ak mucc mooy doo tooñ te doo fayu ak tooñ loolu it incha allah bu ñëwee ci mujj waxtaan wi ñu waneek moom taxawaayam ci wàllu muñ moom sëñ Tuubaa ci boppam taxawaayam ci wàllu muñ position yi ci amee woon te muy am solo lool bokk na ci muñ itam a sabru ala infaq muy lu jafe lool muñ ba nangoo dépassé alal wa i'taay ahli al-xuquuqi xuquuqahum al aqrab fa aqrab loolu nag muy maqaamul munfiqina lu am solo la almunfiquuna suñ borom daf leen a tagg ci alxuraan te dig leen gënal yu rëy mooy ñi nga xam ne dañuy nangoo dépasser seeni alal ngir jëmmi yàlla nangoo jox waroom xaq yi seeni xaq ngir jëmmi yàlla loolu itam muñ gu rëy moo ko mën a lal ba nit ki mën koo def ca mu gëne waaw muñ gu rëy rëy moo ko mën a lal ba nit ki mën koo def ca mu gëne xam ngeen ne joxe lu jafe-jafe la léeg-léeg sax góor góorlu ba joxe waaye dabaatal ko ci ak yàq waaw ba mu yàq wala yaasu billahi taala waaw wala tubtilu sadaqaatikum ak laa tubtilu amaalikum kon bokk na ci bu ñu dépassé alal joxe dafa jafe lool te metti mag ñi dañ daan wax ne ku la dàq joxe bu ngeen xeexoo nit moo lay duma bu ngeen songoo itam moo lay daan ndax aw fit wu rëy mooy mën a tax nit ki def ko ndax bu ne jéy ba xolam mépp ko rek seytaan da ñëw taxaw seytaan ya'idukumul faqra ah yow na neexul de joxe bu mënta ñàkk wala mu sikkalal la ka nga bëgg a jox wala mu wutal la ci ayib wala yu mel noonu pexe moom dafa seytaane moom ku ne xam na ay geeram du yem bakk nit ñëw taxaw fas di diyaaleeg yow ci moom la mën a découragé boo da ko def waaye muñ ga ngay làmbaayoo ba wan ginnaaw pakk yooyu yëpp jéggi ko ba jàll ba joxe loola muñ dëgg dëgg dëgg moo koy waral waaye des na geneen muñ mooy muñ ga ngay def ba gaawal joxe ga waaye muñ ga ngay def itam ba gannaaw bu loola weesoo doo mën a yàqaat jëf ja loolu lépp day wane ne ak muñ moo mën a tax nit ki góorgóorlu ba joxe ñu ngi ma nettali ku baax ci yoon wi koo xam ne dafa am naar bu ko ñaanoon wata mu jëndal ko wata yónnee ko ko mu dawal ko ba ëgsi fekk ko fa mu toog ci am ak i taalibeem ak i mbokkam mu daal di yëkkati caabi ji jox ko ne ko bëgguma bii bii nga ma jox bëgguma ko bu ma lay ñaan oto it waxuma la woon marque bi kooka itam jël caabi ji daal koy awante ci ñaari loxoom ab diir ne ko wax ma boo bëgg mu ne ko wata sangam laa bëgg mu ne ko baax na bis sangam des na la ko indi ba mu demee ñeen nag ci ña toog ci jataay ba xaw diis lu kàdduy naar bi lool ak jëfin wu mel noonu kuy ñaan daal ñu lay may nga doore ci di taamu di ci wax ko ju tàng di ci dolli mu ne leen déedéet tuyaaba ci boppam moo jafee am saa yoo defalee nit ki lu baax tuyaaba day ñëw ne bala nga maa yóbbu day ah des na ko seetaat lijjantee lijjanti ba nga yàq ko ñàkk tuyaaba ja waaye lii ma ko defal li ma ci suñu borom di fayee moo ëpp doole fuuf gën a rëy kàddu yow yii nga xam ne moom lay wax yemawut sax kon loolu day wane ni ah def lu baax ci wàllu woowu itam am na muñ gu réerée rëy gu muy làmboo ba mën a jaar aw yoon bokk na ci itam li ñuy wax as sabru ala al fahsha'i muñ bu baax a baax a baax ba ñaaw téef du génn di law te fekk ne sabab nga ca génn ñaaw téef ka waxuma nga sos ko waaye saabus lawal ko képp yow doo bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy lawal loolu itam bokk na ci muñ gu rafet ñoo ko as sabrul jamil waaye muñ itam ci ñoo ko al munkar njëkkar waaye bokk na ci muñ yitam muñ ba li ñuy tudde al baghi maanaam as sabru anil baghi ñu koy tudde réer di ko tudde bew te mooy atataawulu wal xuluwu wa mujaawazatu al xadd bil kibri wal israafi fi umuri dunia muñ ba doo bokk ci kurusub adduna bi kenn ku nekk di yukkamtiku di seeta ko war lum ëpple ka ca des xeeti màmm yi xeeti jiggi dayo yi ci rëy xeeti jéggi dayo itam ci li ñu tudde israaf di yàq maanaam jëf lu mënoon a ñàkk ci mbiri àdduna yi yooyu yëpp bañ a bokk ci course boobu ak muñ gu réeréeréy moo koy waral ndax boo ko bëggee muñ rek bakkan dafa lay wax ne ah dañ lay xeeb rek boo defut nangam dañ lay xeeb rek waaw bu defee ngay wut ku la naw ba tax laa dugg ci biir course boobu loolu itam day bokk ci liy gàllankoor diine nit ki kon muñ lu réerée réy la lu magga magga mag la waaye it lu jafee jafe la itam suñ borom nee na nema ajrul amilin allazina sabaru gis nga bi muy tagg payub jëfkat yi ñi nga xam ne dañuy jëf lu baax seenu pay bi ko suñ borom di tagg ah daa daal di tudd rek lazina sabaru ñi nga xam ne ñoo muñ kon day mel ni ñoom ñoo jël raw gàddu ga waaye itam ñoo jël ndam la te ñoo jël itam cër bu duun bu duuf la itam ba tey bokk na ci maanay sabru bu ñëwee lan mooy sabru dañuy wax ne at taanni fi l amali xatta yutimma wa yaqul wala xatta yatimmu xatta mooy nit ki daal bépp jëf wala liggéey bu mu sóobu na def ndànk ba àggale ko bum yàkkamti ba bàyyi ko fa bu mu yàkkamti ba def ko def yin woo xam ne bokkul ak wañ ko santaane bu ko dara découragé itam wala mu tàyyalloo ko ba génn ca te fekk ni matalu ko àggalu ko loolu bokk na ci melo yi aji muñ mooy lépp lu dugg rek dana def ndànk manante ak bakkanam laltaayoo ak muñ ba àggale loola ca anam gëmu gën a mate loolu mooy jéego bu jëkk waaye gannaaw bi itam ba mu ko jëfee ba mu àgg itam mu góor góorlu ba bañ koo yàq bu fekkoon toon ni jëf yu baax la jum jëf mu muñ ba nëbb ko mu muñ ba nëbb jëf jooja ndax ragal ci rek eh, lu baree bàyyi ci loo xam ne bu nit ñi xamee ci jëf mën nañ caa ñoddi ayib niki noonu itam mu bañ koo geesooti rek muñ ba bañ koo geesooti bañ a geesooti jëf yu baax joojee mu jëf itam ni ñu ko waxe woon léegi wala tubtilu amalukum kenn ci gaañ yàlla yi ahlul maarifati daa waxoon ne laa yasbutu lil abdi maqaamun fi tawakkuli xata yuziya ويصبر على الأذى nee na wax wakkiirlu ci yàlla day maqaamu mu màgg màgg màgg la waaye ab jaam nag du ci manaam dara lu dul ni dafa doon ku dee fi lor muy muñ ku dee fi lor muy nangoo muñ ku dee fi lor muy nangoo muñ daal moo mën a àgg ci maqaama mu tedd moom yi tawakkulu nag maqaama la mu rëy moo xam ne lenn ci waroon xam-xam yi dañuy wax ne day lan bi yaahu yi ñoo lekk ñam ba mu jeex tàkk ba law li yi eh, xet gi lañ fi fekk walla gaari gi lañ fi fekk des wi kon loolu day wane ni rek muñ moom mooy àggale nit ki ci fépp fu mu bëgg a àgg yonent alayhi salaatu wasalaam suñu borom daf ko noonu wa da azahum wa tawakkal gis nga ni ni mi tudd tudd foofu mu ngoog waaw seen yi nag da koy bàyyi nag da ngay bàyyi di muñ seeni lor waaw muy ngay muñ nag te nga wakkiirlu nag ci yàlla sa borom waaw te nga wakkiirlu ci yàlla min alxilmi ma lam yaxwihi jabalun laaqa al aza fi lbaraya wa huwa sabaaru nee na lewetuk yonent bi daal aw doj sax amu ko xam nga aw doj fam sampee ku ko fa fekkul di ko mbëkk du ci teg yow dara doj wi du yuuxu du baj baji naaj wi du tàng ba nga dégg jàmbatam du taw mbaamu sedd ba nga dégg jàmbatam déplacé wut yàqalut kenn dara te yaa ngi yéeg ci kawam di cëpp cëppitu du yëngu mu ne lewetuk doj moomu nag lewetuk rasulullahi gi moo gën a bari mu ne rasulullahi sallallahu alayhi daana dajeeg lor yu bari ci mbindeef yi waaye wax wa sabbaaru gis nga muñaakoon la waaw wax wa sabbaaru hmm. laa xal asa fil baraya wax wa sabbaaru gis nga ni muy feeñale jikkoy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay meloom laa xal asa fil baraya wax wa sabbaaru lor ju nekk dañ ko daan teg waaye it mu nekk rek ab muñaakoon kon gis nga muñ lu màgg a màgg a màgg la suñu boroom fattaxidu wakilan wasbir ala ma yaqulun gis nga loolu ko digaloon jàppal yàlla rek def ko sa wéeruwaay muñ nag li ñuy wax loolu ñëpp war jële ci moom la alayhi nga gis ne muñ itam sunu boroom muñ mooy lam ca jëkka mooy lam ca gën a lam ca gën a digle fayu nag mën naa am ci kem nit ki lañ ko tooñ wa in aqabatum fa aqibu bi misli bi waaye nag day bu ñu leen defee day def leen def leen leen waaye nag def gu toll ni képp nag lañ leen def te bañ ko weesu loolu mooy bu ñu leen tooñee man ngeen a fay rek waaye nag wala in sabartum la huwa xayrun lissabirin ay bu ngeen mu ñoon maa ngi giñ ne bu ngeen muñoon day mooy gën loolu boobaa mooy gën ñeel way muñ yi boo xoolee baat boobu ni mu ko tëggee moom sunu boroom boo delloo ci bulaxa yi wala in sabartum la uwa xayrun lissabirin xayrun lissabirin cey laam googu ci dugg ak in googi ci dugg ak laam googee tàggu ci uwa loolu lépp dafa am nu mu fay firi dafa am nu mu fay firi fedd li gi ko fedd li dafa day day day day yokk wax ji diisaay da koy yokku rëy da koy yokku da koy yokku rëy ak tolluwaay bu kawee kawe kawe kawe wala in sabartum maa ngi géñ ne bu ngeen muñoon la huwa xayrun lissabirin aaya ji danañ ci nettali loo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mas na koo wax kenn ci ay dongoom ci ni ñu ma ko nettalee nee na dafa am ku mu jàppanteel moom dongoom boobu yi wax ja nag teeri ci sëñ ba sëñ bi woo ko mu ñëw sëñ bi doon ko digal ne ko sëñ tubaar yi dafa am lu mu waxoon ne ko maa ngi lay dénk bis ni ki tey bul merati mukk ne naa ko faje ay wax wala nga mer ne naa ko faje ay jëf la waxe sëñ Tuubaa la ko doon nettali moom Cheikh Abdou Lahad naa ne naa ko faje wax wala nga mer ne naa ko faje ay jëf daal ko ne boo mere ne naa ko faje ay wax day soppiku géej nga lab ca boo nee naa ko faje faje ay jëf nag day soppiku gaynde fàdd la xam nga paj muy soppiku géej nga lab ci moom ak paj muy soppiku gaynde fàdd la menn paj ëmmatul ci solo ci nit waaye mu jox ko ci ñaari misaal ne ko boo meree ne naa ko faje wax la tax muy soppiku géej nga lab ci mooy da ngay wax baat boo xam ne day ëpp bu ko defee ñu dem ba mer ma jeex tàkk ba loola weesu ba ñuy dund jeneen jamono nag waaye baat bi moom yow dootu la mën a génn saa yu ne jàkk ka ko waxan rek baat bi day dil si waat ci sa kanam ak doote moom fàtte na ko rek nga xam ne yow baat bi mënatoo ko génn benn boor kon kay soppi na géej nga la nga gis nit koo xam ne bu déggee nit barab sàngam sax du fa xalaat a jaar te moom moo ko waxoon lu tax mënatu koo gis wala mu defoon ko loo xam ne mënatu koo gis su booba xew-xew weesu na amaana sax kan ko séqalante woon fàtte na ko bu yàgg-yàgg moo tax bul merati mukk ñu naa ko faji wax bu dee naa ko faje jëf mu ne ko boo génnoon ci mbedd mi nit jàll la baat nga yëkkati dara rek yen ko ko wala nga ne ko tépp dóor bëñam wadd deretam tuuru bu nit ñi ñëwee lam la wax moom duñ ko fa fekk duñ fa fekk mukk wax ja bu ci amee lenn lu ñuy xam ko yow yaa koy nekk li waata ko wax waaye moom moom wax ja duñ ko fekk waaye jëf jëne moom dañ ko fay fekk mu doon luñ mën a yëkkati loxo teg ko ci man koo laal ak baaram bët yi di ko gis kon kay jëf ji soppiku na gaynde yow fàdd la yow ba noppi ndax la tax nga def nga nga def jëf ji li ñëpp yedde loola moom kenn du ko fa fekk moom yow ko yaay toog di ko amaan na ñu gëm ko wala ñu ñàkk koo gëm waaye li nit ñi gis moom loola soxlawul firnde ak nu mu demee waaye lam ko ca tegal nag ne ko ana nooy def bu la tooñeetee da ngay yàlla fayul la fay la buñ la tooñeetee da ngay muñ yàlla fayul la fay la <laughs> muy ñaari yëf yoo xam ne loolu sëñ bi waxoon sëñ bee waxoon ne euh, ba ma mosee ñu tooñ ma mu muñ léegi de baatuma ko ndax dañu ma tooñ ma muñ ngir yàlla yàlla fayul ma fay ma waaye nag ma muñ ngir yàlla waxuma muñ ngir ñàkk pexe wala jiim jiim bëtale bàyyi nee naa far bàyyi féete yàlla nag am déedéet waaye muñ ngir yàlla yàlla fayul la fay la rek waaw muñ ngir yàlla yàlla fayul la fay la te bu la yàlla fayulee mooy ëpp noo noo bëgg a fayoo ak noo yéene woon a fayoo waaye bu la fayee nag pay ga gën a ci waaye bu fekkee da jéggale nag pay nga gën a di nag loolu mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci muñ ban taxawaay la ci taalibe bi waram am na ci ay dongoom ñu jàppoon am ruur maanaam ay sàmm ruural li ñu jàpp jur ga ba mu ko yëgee daa wax ne nañ leen delloo jur ga te jéggal leen daan ne bu ngeen jaayoon sàmm ba boole ko ak jur ga du tax ngeen am ngeen jot payuk aji jéggale la suñ borom di fay aji jéggale ngir yàlla bu ëllëgee loolu mënee su ko jënd ci ak njëg mënee su ko jënd ci ak njëg kon gis nga loolu ni mu amee solo ak lool yi ni mu rée kon sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul day na sëkk tegtal ci koo xam ne bëgg naa muñ mu xool moom fim jaar ak ay noonam ba dim ba dil si te afawtu anil ahdaa yi tural la ci teg waaye salimtu minal ahdaa yi tural la ci teg toppantewul dara bu ñu ko toppee nag mawqif par mawqif fenn fu ci nekk rek la muñ laaj lépp da koo joxe moom Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu fu ci nekk la ak muñ laaj lépp daf koo joxe ci anam gëmu gën a mate ak anam gëmu gën a tedd bokk na ci ñi ngay xamee muñu sëñ Touba mooy warab ya nga xam ne njàmbat rek la sàkk woon foofee danga fay gise ak muñam cëramu gën a rafet ndax léeg-léeg nag ak jaam traversé barab boo xam ne bu fa jàmbatee itam loola mën naa bañ a doon nag lu garaaw wax dëgg yàlla waaye fa nga xam ne njàmbat jaaru na fa foofa dem rek da ngay fekk mu muñ fa muñ bu rafet bu jéggee jéggi sax dayoo moom it ngay xam ci koo xam ne moo ëpp lu ñu ko tooñ ci kaw suuf suñu nag li ñuy wax teg ko ay mbir yu jaaduwul mooy ki ëpp lu ñu ko def ci li ñu xam ci réew mii walla ci biti réew mi waaye kenn mësta dégg ñu ne fayu na moom daal bam mu seqeeg sëñ ba nangam sëñ ba fayu na loolu moom kenn mësu koo dégg du fayu mukk waaye bokk na ci yooyu sax li ci gën a yéeme mooy euh, mbirum naaj yi mi woon ca gànnaar bi mu ñëwee ak ay pexe ngir fexeel sëñ bi te jenn yit rek kat lamoon mooy jël ba kanam te it jege woon na ko lool ba mu jaaree fa muy jaar ba jàpp ne tey jiila la pexeem war a sotti mu bàyyi ba guddi nag mu bett sëñ bi ci xayma ba yëkkati jaasi joo xam ne maara day tali xàcc ko ba loxom sës fas ko yéene wàcce ci jimmi ku tedd kookee radiallahu taala waaye ci dogalub yàlla ak coobareem rek ak bëgg gum bëgg sëñ Tuuba jaasi ca gantu maanaam ngant am ci jaasi ca ndax dafa lonk ci bu muy xayma ba mën la wàcc dongo yi bett ko fa foofee moom daanaka rek bu sëñ bi doon cellit lay xew day daldi xew cëna mu gën a gaawee waaye bokk yi mawqif boobu ah dugg ci génn ci lu jafee jafe jafe la waaye xoolal génn way bu rafet bi ci sëriñ Tuubaa am Xaadimu Rasuul da gis muñ gu rëy gi nekk ci moom ak dal gi analum ci santaane santaane ne bu ko kenn def dara waaye digle itam ñu yóbbu ko ba barab sàngam ñu bàyyi ko fa bu ko kenn def dara maanaam ñu génne ko ngox bu bépp ba nga xam ne kenn ku bokk ci moom du dajeek moom foofu bay ko ma ne lor xoolal njéggal gu rafet googu mu ko jéggal waaye doyut dafa gaarante warlu ak muccam ba mu muy génn ci këram akub goxam mucc ci loxo yi ay dongom ak i soppeem ba kenn itam du ko lor te bokk yi loolu lu jafee jafee jafe la gis nga loolu am na lu baree bari luñ ci mën a jàngate am na lu baree baree bari luñ ci mën a jàngate dafa am ca jamono kilifa goo xam ne ku bari woon mbooloo la ki taalibe ki dongook nangam am ku ko fekk ci këram dal koy jàll baat mu dal ne eh dóor leen taalibe yi daal di jóg ba ñu sexitoo waaje daal la cee xew xew na ci ba gannaaw yàlla ca la waaje jaare ñàkk bakkanam ñu daal di jël mbiram yóbbu ci yoon ñu àtte ko tëj ko diirub ñaar fukki at mu sax ca kaso ba daara ja tas lu baree baree bare yàqu mu génn ca génne wale tawat dundal at yu ñiw daal di faatu génn àdduna bokk yi xoolal li gàllankoor liggéeyab lislaam boobu lépp ak mission bu am solo bi mu yoroon wara wom mat aw nit war leen a jàllale gàllankoor bi bàyyikuwul ci lu dul néew ak muñ ket weesuut loolu defe naa bu fàttaliku woon ci taxawaayu sëñ Tuubaa ca ak ñàbbat njaas yi tiim ko ci gànnaar dana war a mën a muñ lu bare bari muñ moo tax maqaam mu jafee taxaw la léeg-léeg ñu tagg ci doomu aadama waaye manes na koo tagg nit wax ku nii rek waaye lu jafe-jafe taxaw la nag lu jafe maqaam mu jafe-jafe taxaw la dafa am ci euh, gaa ñu baax ñi koo xam ne comme noonu ñu daan def rek mu woote woo maqaama muñ dal ne man dey suñ borom dimbali na ma ba euh, muñ moom xawma ku ko dàq ci kaw suuf suñ borom dimbali ma dimbal loo xam ne amul dara ci kaw suuf lu ma mënta muñ wàllu muñ daal man ñeetuma ci kenn nangam nangam naka la ko wax rek benn waaye <laughs> daal di tëb ci mbooloo ma ne ko ah da ngay da ngay da ngay nangam maanaam ngeen baal ma njàngale mi rek a tax ma koy tudd waaye da ko ne da ngay fen rek bi mu ko ko waxee waa ji mer fi sensi tàngi jërr ba bëgg a xotti ko bëj yi xong mu sotti ko sotti goo xam ne daal jéggi na dayoo bi mu ko defee rek ki ko wax loolu daal di ree dal ko ne ah waaw yow maqaamam muñ mu toll nii nga di ko woote woote sama baat bu ñàkk solo yii ma la wax rek mënoo koo muñ waaw nga xam ne waat yi gën a woyof ci li nit mën a wax nit muñ ko moom laa la wax te mënoo ko muñ kon nag naka ngay woote woo maqaamam muñ mu toll noonu di wax ne mënatoo nit mënatoo laa def la naq rek fii nga toll ci muñ ak nangam nangam kon xoolal maqaam maqaamu mag mu rëy moom yi mu doon yóotu di wane ne moom àgg na ca toll na ca tolluwaay booba ndekete moom seqeegut sax benn jéego ci maqaamay muñ yi nga xam ne nitu yàlla ku nekk war na ko takkaayoo waaye sëñ tubaa xoolal ni ñimee ak ñàkk ñimee ni wéet itam ñimee ni tumbaranke wéeru ci yàlla loolu muñ gu rëy rëy rëy jamono bi jamono yi xat ci moom tey metti ci moom lool ñu koy colaas nan ko ñëwal wax ak buur mii mu féetale fii mu taxawu la nii jox la pal gi xejjal la fii samp la fii nga moom lii yilif lii bu dee suuf bu dee mbooloo loo bëgg ma mënal koo jox bu dee alal bu dee naari góor nangam lu nekk ñu di ko ko wax te jamono tar ci moom tar gu jéggee jéggi sax dayoo wan ko bëtub gaynde waaye xoolal keroog muñ nga na mu feeñe ci xaalam qaaloo li yarkan li abwaabi salaatin taxoos jawaisa tuxni kullama xiini wa qultu xasbi rabbi bi bihi walastu raadiya gayra al ilmi waddin ma nga ca maqaamam tawakkul ak tawakkul nga xam ne ak tawakkul wa tafwid wa taslim loolu ngay séen muy jolli ci biir waxam jooju te waxoon nañ la maqaamam moomu kët kenn mënu caa jaar lu dul ci escalier muñ gu yëkkatiku gu sax dàkk ci nga mën a jaar ba àgg dëgg-dëgg nag ci maqaam moomee kon gis nga taxawaay boobu sëriñ bi li mu fi jàngale mooy nit ki bu ko jamono wanee ginnaaw wala jamono wan ko but bu xong jafe-jafe yi ñëw tartar yi ñëw ak la ca ju lépp na jël muñ def ko muy wéttalam def ko itam muy ndimbalam te wéeruwaayam wastaayinu bi sabri wassalaam ñaari kenoon yoo xam ne képp ku ci wéeru doo jàng doo daanu mukk ndax suñ boroom moo ko samp te wax ne na ci dimbaliku muy muñ ak julli seydna sufyaan assawri radiallahu anhu mas nañ ko laaj ma afdalul amaali mas nañ koo laaj ma afdalul amali lan moo gën ci jëf yi qaal sabru indal ibtila xanaa muñ fa nattu ya muñ ca nattu ya loolu de moom jàpp na ne moom mooy li gën ci jëf yi ndax muñ moom bu amul njàmbat rek wala sabru in lam yanfai shaku ajmaru muñ moom bu amul njàmbat rek njàmbat rek te nattub suñ borom nag njàmbat da cay indi ak njéppite waaye daawu ca indi nag saafara waaye nattub suñ boroom muñ moom moo cay indi ak teggiku moo cay indi yëkkati kook daraja ak njëgaluk yàlla ak lam ca digge lépp kon day mel ni muñ kon sunu borom dana nattu nit ki ci lu mu bañ lool yàlla nattoo ko ko moo xam ne fu mu ko mën a féete ak ci lu mu mën a doon waaye muñ gu rafet rek lañ ko ca sant bu boobaa walla mu nattoo ko coono wala xat-xat wala tiis ndax nattu mën naa ñëw di lu neex wala muy lu naqari ni muy nekk lu naqari noonu la mën a nekk itam lu neex xeeti wéré di yaram suñ borom mën na cee nattu nit su boobaa muy faju na ko koy islaam sante tey moytu njàmbat te di ko muñ ngir jëm yàlla mën na koo natt tam ci xatal ak dundam wàllu wërsëg wi xat lool xat gu sax jéggi dayoo loo it kazalika ni ki noonu rek muñ gëmu laaj lépp mu fas ko yéene joxe mën na koo nattu itam ci njaboot ak lu mel noonu ba ci liggéey bi muy liggéey lépp nattu suñ boroom mën na ci ñëw waaye noonu la ko mën a nattoo itam ci xeeti bànneex ak foyteef yi la gis koo xam ne day topp yooyu toppi mu jéggee jéggi sax dayoo te loolu day sànke loolu lépp it bokk na ci loo xam ne nit ki ak muñ la laaj dëgg dëgg dëgg ngir mën caa jëriñ asabru fi asabru ala alawafi an laa yujriha mu lmuxaalafa nit ki daal bu fekkee suñu boroom da koo xéewale defal ko jàmm may ko njaboot may ko nangam bokk na ci muñ gëm ci war a muñ mooy mu bañ koo ñoddi nag ba juuyale ko ak sunu borom wala mu koy xañ santaane sunu borom yi subhanahu wa loolu lépp ak muñ gu matamat rek mooy tax nit ki mën ko def wax nañ ni muñ ci jàmm sax si di xuune yi rek ñoom ñoo ko mën a def ndax sëxlu dafa waxoon ne muñ ci jàmm day moo gën a jafe gën a metti gën a tar muñ balaa kon gis nga balaa ni mu taree nga xam ne ñu baree bari attanuñ ci lu dara dara dara waj li ndekete ak muñam kat moo gën a woyof sax muñ ci jàmm ndax jàmm moom eh, nit ki bu ko suñu borom xéewalee li bëgg lépp mu di ko am kooku su su muñut rek mën naa xaabaabal mën naa jéggi dayoo ci jëf wala ci wax ba yegg nag foo xam ne wala yas billahi taala ah doontu fu mu war a àgg waaw donc ah, sabru alal ghina lu nit ki war a gën a mën a muñ la ah, la yubziluhu fil hawa mu bañ koo génne alal di ko dugal ci loo xam ne topp bànneex rek la loolu itam kazalika bokk na ci muñ gu rafet asabru ala ala niamati nag muñ xéewal nag mooy an la yastaina biha ila mu mu bañ a sukkandiku ci xéewalam googi di ko moyee boromam euh, ku yàlla jox ay moyen bu mu ko moyee moyen yi baatu tubaab la moyen yi baatu wolof la ku yàlla jox ay moyen bu mu ko moyee dangay gis ne ñi dàq def lu jaar wut dafa fekk ne dañoo am moyen la waajo waxoon ne mooy yàlla dëgg borom alal ko man wala borom moyen ko man ndax dangay am lépp man lépp itam joti fépp waaye ku suñ borom jox xéewal itam bu mu sukkandikoo xéewal googee da ciy def dara loo xam ne jaaruut wala mu ci lor mi def bokk na ci muñ itam nëbbu jafeñ-jafeñ yi musiba yi nga xam ne dal na ci sa kaw loo ci mën a nëbbu nga di ko nëbbu ngir yàlla waaye métit yi itam ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne métit ba mu yor eh, da cay boole ay biññi yu metti ak i saalit ak i yuuxu ak i baj-baj yi nit ñi di ko wër di ko dëfal muy ñànki di saalit di nangam loolu lépp te fekk ni euh, mënoon naa gën a góorgóorlu ba gàttandoo ko ak muñ ak xol bu jàmbaare ci ak muñ bu baax a baax a baax baax ba nga xam ne day mujj sax nit ñi ñoo koy yanul mettit bi ci di ko tiisoo ak di ko yërëm waaye waxtu wu nekk mu leen di wan ne lépp ngi woyof alhamdulilah te fekk ne déedéet ak woyof sax néwu fa euh, loolu euh, bokk na ci muñ gi gën a rafet Euh, sëñ bi am na fu mu ko waxoon ci kun kaatima xatta yazunnu naasa annaka mun am ko la nit ki di wéyaale loo xam ne daanaka rek dana ko dana ko muuri muñ gu rafet ba ku ko gis day jàpp ne kii kat mu ngi ci jàmm ak yaatu ak xéewal ak nangam te fekk ne yoo kat am na loo xew loo xam ne daanaka rek mën a su ko wax ndeysaan léeg-léeg nga dégg nit génn àdduna nga naan ah waaw moom bett na di xanaa moom daa woppatoon nangam leeral ñu ne ah moom nag dafa da doon ku jàmbaare te muñ rek waaye nag am na lu mu doon wéyale xoolal sutura soosu nga xam ne muñ gu rëy moo ko taawu ba yàlla dikk ak dogalam loolu yàlla da koy fay yàlla da koy fay fay yu réy sax yu màgg màgg màgg màgg ndax njàmbat mënta teg gi dogalub suñ boroom waaye mën naa indi njëppite kon muñ lu am am solo suñu jeexale Abdullah ibn Abbas daa waxoon ni muñ dafa ci alxuraan day am na ñetti an anam anam gu njëkk muy a sabru ala adaa'i faraa'idi lillahi muñ ba mën a joxe farata yi ngir jëmmi yàlla muñ googu am na ñetti téeméeri pay boo demee ci masaayiku jinaan sëñ Tuubaa wax na ko fax ju leer a leer a leer sax sabru an sabru fii sabru ala wa sabru anil maxaarimi lillahi muñ ba doo laal yi sunu borom xaraamal ngir jëmmi yàlla dong nag nee na loolu am na juróom benn téeméeri daraja wa sabru fil maasiyati inda fil musibati laa bëgg a wax fil musibati waaye muñ itam ah bu musiba wàccee waaye nag ca asadmatul ula asadmatul ula mooy lan mooy mbir ma ci ba mu ne tépp rek foofee la ko nit war a muñe ndax musiba amul lenn luy jóg rek màgg amul lenn luy luy jóge ak rëy jëm ci wàññiku ba mu des musiba musiba rek mooy ñëw ci ak rëy di jëm nag ci wàññiku waaw bu dee xiiwal nag day jóge ci ak ndaw jëm ci kawe moom sant la laaj ngay dem di sant rek waaye bu dee musiba moom bu ñëwee ni tes day rëy lool waaye ngay muñ nag muy wàññiku di wàññiku ba far na ne jeex na sax takk kon moom dañ ko war a muñ waaye nag ci tépp ju jëkk ji rek ci conk mu jëkk ma daal foofee la ko nit ki muñe waaye du saalit ñanki ah wax lu ne def lu ne ba noppi door a jekki nag ni muñ naa na ko soxna sa waxee woon rek ba muy saalit ci doom ju faatu yant bi sa sam wax ceeg moom mu ne kon nag muñ naa mu ne ko asabru inda sadmatil ula sadmatul ula foofu lañ soxla ak muñ dëgg dëgg mu ngi foofu kon mbokk yi lii lenn nat la ci waxi sunu borom ak ab yonantam ak waxi lenn ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ak itam lenn ci melo yi sëñ ab taxawaayam ci ak muñ ngir ñu xam ne rek muñ moom menn mbir la moo xam ne benn jullit mënta doylu walis ko ngëm mënta mat walis muñ gis nga julli am na muñ gum làmboo ba nit ki mën koo def woor itam moom bañ nañ ko ba sax sabri lañ ko tuddee waaye aj makka yitam noonu faw muñ la làmboo azaka joxe ko <clears throat> muñ la làmboo xeeti jëf yëpp muñ la làmboo waaye ba ci dépassé moo xam sa soxna ngay jox dépasse wala yu ndimbal war a génn lépp muñ la làmboo waaye jëflanteeg nit ñi itam loolu muñ la làmboo ndax ku nangu wuta muñ dara booy woo bañ a génn sa néeg ndax booy génn ñu lay tooñ wala ñu lay jëw wala ñu lay yóbbante baat walla ñu wax na naka surut noonu ndeysaan dafa am menn mbokk ma jege ma sa nettali ne ma daa ma sa dugg jib kaara ci ndakaaw di jëm menn tudd di mel maa ngi benn ngénte benn ngénteel mbokkam ca dëkk ba ñuy wax géejaway nee na am soxna soo xam ne gone gu jigéen la daay yéeg sol seen dalli càpp yooyu nee na bi muy jéggi daal may joggi ma ne ko woy sama ndey gone gi rey nga ma mu ne ma meer rey yàllaa koy def waaye nit du ko def nee na nag daanaka ma xuróo ci ak moom ba wàcc jot <laughs> xolo métte waaye nee na yàlla dogal fi ma fi ma ñaan pour wàcc fi moom moom itam fi la fi la fi la wàcc mais ba ma jàppoon sax xëy na daa bëgg àggale xuloo bi neena ma waaxuy dem moo waxu topp sama gannaaw nee saa yu ma geesoo gis ko nee na ñu ànd di dox ba ba tàbbi ci génn kër maak moom nee ñu bokk ñu gàddu na ni way diwa ngi way diwa ngi ni ah, koy lijjantee tey kenn du foofu da ngay <clears throat> muñ lante gi boroom santaane te soxla ko loolu dafa daal di manqué foofee bu baax a baax a baax ñu ne naaj gaañ ko na daal di mettitlu te dal di wax rek lu rafet waaye ki gaañu itam même bu déggoon baat bu safaanu itam daa war a yëg ni aw mettit de léeg-léeg am na ci nit ñi ñu ko ëttanul boo xam ne bu ñëwee rek am na baat bu leen rëcc bu nuy jëfandikoo su ko defee diggante masawu foofee ak woyof lu mbir ma dana mën a waral bu baax a baax a baax a baax euh, li ñuy wax muñ lante daal moo fa mën moo moo moo moo fa moo fa mën a nekk waaye xaw tuuti lu wërtoon a yàqu mu di bokk gu yéeme yéeme dana yàqu te kat sax nag même jëmmi ak bokk bu yàqutu woon foofu nga xam ne foofu lañ tàggoo kenn gisul sa morom tam jikkoo fa yàqoo te mbokk gu yàqu jikko ji yàqu lépp dara baaxu ci bani yasubillahi taala kon nag day mel ni bokk yi euh, li des ci sunu diggante yëkkati jataay yu bariwut dañuy taxaw taxawlu foofu rek incha allahu taala te jima tontu ci laaj yi incha allahu taala suñu kem kartan kon seet xam laaj yi lu ci ñëw rek koo tontu incha allah waaw bismillah kon ñu jéem a indi lenn ci laaj yi ñu jot fii ci suuf rek bi ci njëkk mooy koo xam ne dafa booloo ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor waaye du teyam da ko fàtte dañuy wax ne kooku fay bis rek moo koy war waaye kafaara du ko war dañoo sukkandiku nag ci fàtte googu yi mu fàtte ci xadisu nu maaja boobu mu waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa foofu it des na fi def ci taxaw seetlu ndax diggante réere ko ak fàtte ko it ginnaaw lu ñaar di séq la amaana lu mën a jafe lay doon ndax mbooloo gi ci bëcc gu weeru koor te ku góor ki fàtte na dafa dañoo woor ku jigéen ki fàtte na dañoo woor xëy na mën naam waaye it lu jafe-jafe lay doon ba tax na bunt la boo xam ne euh, bu dee ci wàllu réere ko moom ñu baree bari duñ nangoo ubbi bunt boobu ndax bañ a taxawul ak doyadal weer wi di ci ñaareel mooy ñi nga xam ne dañuy yor benn néeg di ci nekk ak seen soxna amaana benn lal sax bokku mbàjj ak yu mel noonu ci weeru koor waa weer bi dañuy wax ne waxtu woo xamee ne nit ki mu ngi nekk ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor lépp lu di jonjoo dañ ko koy moytandikuloo maanaam dañ koo sib dañoo sib ak jonjoo ci digganteem ak soxnaam soosu bu fekkente ne xam nañu ne nag moom nañ siinu bakkan moomin woo xam ne danañu mën a mucc ca lay war a génn ci jonjoo du ca mas a génn loolu su boobaa la yor a sib jonjo ga waaye bu fekkente ne nag lañuy ragal mu génn mën naa génn ci kenn ci ñoom ñaar su boobaa dafay xaraam siinu jonjoo ñoom ñaar kon daal day mel ni dandante gi moom ci bëccëgu weeru koor mooy gën a mucc bu baax a baax a baax genn jaxasoo gi ba lenn di ca mën a sababoo loolu daal mu ngi delluwaat ci ñoom ñaar kem ni ñu moome rek seeni bakkan allahu taala alam ñetteelu laaj bi mu ne gone góor yi faral di sol yëre yu gàtt te mu mel ni lu yaatu lool ci jamono tasaaroo ñuy wax ne xawra day xawra ci boppam dañ koo xamle ci góor xamle ko ci jigéen góor diggante jumbax ba ci bëti óom loola awra la ci moom yaa ngi fekk nag ñuy sol ay ay ay kiloot yu gàtt yoo xam ne siiri woom ak lu ko féete kaw sax day génn loolu lu xaraam la lu xaraama xaraama sax kenn mënu cee julli te it bañ a mu nekk war na koo moytu même loolu bu muuroo sax diggante wagg yaag gannaaw gaag dënd baag yeneen yoo yee cay feeñ loolee lu ñu cible góor di ko wuññ ak di ko feeñal rawat nag la nga xam ne dañ ne ko duut baaram ni lii moom xawra la loolu moom góor gu nekk war na ko moytu bu baax a baax a baax góor gu nekk war na ko moytu bu baax a baax a baax kem ni ñuy sant jigéen ñi ñuy euh, suutural seeni awra loolu jàpp naa ne jigéen ñi niñ ci yeyee góor ñi itam noonu lañ ci yeyee faw ñoom itam ñuy sutural bu baax a baax a baax seeni awra moo tax wuññi gi moom euh, bokk na ci li ñu tere beneen laaj bi mooy kii naafile te wattuwul alquran ndax dagan na mu ŋàbbu téere ba di ci xool waaw dagan na mën naa ngàbbu téere ba di ci xool insha allahu taala xam naa day mel ni dañuy taxawlu foofu insha allah laaj yi des na waaye ginnaaw dañu koy wéyal nag bu suba ci onze heures jàpp xëy na waxtu woowu ñu gën a ñëw ci yeneen laaj yi nga xam ne laaj na ay détail bu baax a baax a baax gën cee leeral suñ kem kàttan insha allahu taala ndax waxtu waa ngi bëgg guddi di jéggulu ñépp nag di déglu ngant ci woo mboolem waroon xam-xam yi ci barab bi ñëpp ci njuumte yi ak euh, lépp luñ ci gàttañ lu te warañ koo jotal ak lépp luñ ci xaabaabal te waroon koo gàttal lépp yàlla na ko suñu borom jéggal te ngeen jéggal ñu ko yéen itam di ñaan suñu borom mu nangul nu li ci yéene woon in uridu illa al a mastataatu wa ma tawfiqi illa billah di ñaanal sëriñ Abdou Samad Mbàkke sëriñ sëriñ Fay ba borom gën koo taxaw bu baax a baax a baax ndax lii mu def lépp dajale mbooloo yi ci barab yi te dajale leen fi ci lu dul rekk ñu bokk di fàttalante lu ñu gën a mën a jëme kanam sunu diinee sunu lislaam sunu taalu bi loolu wax dëgg yàlla ñëpp am nañ ko ci cant ak njukkal ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax